maja ma ahousu billahi min asheytan rajim bismillah majalatu shakk inda Descartes aljanibu salbi yi awalan ashakku fi lxawaas an alxawaasa xaadia xaadiatun laa na mudrakatiha laa na mudrakatiha mutaxayira wa min alxikma ala natmaina kulla al itminaan illa man qadauna walaw maratan wahida kama an al yaqin madlub lan yataxaqaqa illa isa atraxna janiban alxawaas wa mudrakatiha almutaxayira asakku fi lxayaati shuhuriya waaw moom foofu mooy la xasaay mooy la xasaay li li li li waxoon. maanaam léegi yëg-yëg yi. cinq sens yi moom. wóorul li li mu lay wan mën naa bañ ñu wér. maanaam léegi kon léegi yow jant bi yaakaar ne aw miskil la fekk ne tolluñ si nekk rek nekk rek moo ëpp sax suuf si. ndax ndax ku ne xam nga ne su la ñu sore woon. day tudd fi yow. ba jege rëy nga xam ne kon kon kat li nga gisoon fële kon laa ndax. waaw noonu lañ ko comme ça mooy la xasal waxoon rek.
waaw bu dee ashakk fi lxayaati shuhuriya moo ci topp.
waaw mu ne yow.
yara alba yara albaadu annama naqumu bihi min sulukin shuhuriyin. مثل القيام والجلوس والمشي وما ندركه بحواسنا الخاصة لا يمكن الشك فيه ولكن دكارت يرفض ذلك بقوله ومن يدرينا إنما نراه ah am na maanaam an an waaw moom da ko kii suuf kon anna man raahul an lam yakun illa hulluman tawilan misla man raahu fi ahlaami nawmi wa nasunu haqiqatan faqad yati waxtan nastayqisu fihi wa nataakkadu annahu wahmun wa hulmun tawil loolu loolu la ki waxaat ba rek xasali moom koy daanaka benn waaw dund dund gi li li ngay koy gis nii maanaam di di ko atte jot ne wér na maanaam léegi mën naa ba ñu wér ma nga yaakaar mën naa doon ay gént njaayeen boo xamante ne kooku daa xiifoon ci bëccëg gi lépp bu di jot yàlla ubbil ko fenêtre boo xam ne te mu jox ko ay boole bu lekk ba suur bu yow xam ne li lekkul dara waaw loolu kon mën naa nekk waaw waaw soor mooy li ngay yëg rek waaw ay yéegi mooy yéegi yéegi ñaar ma saalisan ak chaque question nag dañ ko firi conscience tubaab conscience conscience waaw conscience waaw conscience waaw الشك في الحقل waaw يرفض ديكارت أيضا أن يكون اليقين موجودا في الاستدلالات التي تستمد قوتها اليقينية من بداها الحق مثل قولنا آه، لا تنطق. مثل قولنا آه، دو آه، بلس تروا يساوي خمسة waaw وقد رفض ديكارت ذلك بسبب ما يسميه الشيطان الماكر waaw فيعتقد ديكارت أن هناك شيطان ماكر يدلل ولا يدلل waaw yu dal li lu يدلل حقولنا آه.
منذ وجودنا في الحياة waaw وظل يخضعنا ويصور لنا الوهم حقيقة حقيقة طوال حياتنا ولذلك فقد تكون هذه البديهيات مم.
عقلية خاطئة بسبب هذا الشيطان الماكر maanaam lo- lo- loolu loolu loolu la xasaay li li waxoon na mën naa mën naa am loo xam ne su leeroon da- da- day mel ne suñu xam-xam bi gën gën fay doon maanaam albasira moom loolu wax fii dafa nekk li ñu jàpp ne dëgg dëgg dëgg la atte yi nga xam ne xel ko teg naa la naa la naa la benn benn gën tuuti ñaar kaw kaw mu mu mu mu bokkut ak suuf nag yooyu tamit bokkuñu mu ne yooyu yëpp mën naa bañ a wér si si si si tànn market yi li ñu jublu lu mooy xeliyaar xeliyaar maanaam daal dute dute waaw day dute ne ma ma loolu loolu maa yow lan lan moo la wax ne la loolu wér na maanaam man ko- ana kan moo wax mu- xam nga léegi ma maa léegi dafa war a am kon ku ne ci biti al moo bi bi ñu wax alxuraan ne alxuraan yonte bi moo ko créé wala wala dañ ko wax ak salsala ñu ne ci salaam su ma di di di di di jokkoo ak sina jibril dañuy dégg ak yëngu ak jóololi ab sonnerie bu yëngu waaw dara ñàkkte xëppit ah ñoo xam ne ko kon léegi bu bu doon bu doon kon léegi da daa jóge ci moom kon loolu kon do am ko daa ndax bu di loolu maanaam léegi kon da ko créé maanaam fii ne kon léegi yow lan moo ne ci bitti loo xam ne moo naa le un plus un égal deux dëgg la ndax ndax du aara soo demee ci xasal yi ca lu ñu tuddee ay téeréem bi al iqtisaadu fil irtixaad ah al li den do sax ma kay na daga lan la leer waaw kay al waaw al iqtisaadu fil irtixaad ab téere la boo xamante ne xasal yi dafa wax ne aada xawaan yi ñuy wax yi scientifique yi wax jëmmul sax mën naam aada dong la aada aada rek lay aada ju yàgg yàgg
weer sangam ci ci lay taw ci la nawet di am ci suñu nangam ak ak yooyu mu ne loolu loolu mën naa am aada la waaye du firi ne suñu borom su maanaam léegi loo xamante ni mënu mënta mënta changé ko kon it moom moom la Descartes di wax noonu mën a waxul nag ne xanaa seytaan am na seytaan bu mag bu nekk loolu wax xat yikun la xat yikunu mën naa nekk قد يكون
waaw ma saxul la seytaan أن أن أن أن هنا قد يكون هناك الورنوس mu xoog maanaam moom أن هناك moom daa mel ne ko fet da ko da ko fa jëlee waaw mu mu maanaam moom fii da- da- ginnaaw day dute ba tey mi mi ngi ci ba tey état bu dute waaw kon mu- kon léegi kon mën naa am kon kat am na ku may nax demagul nag ba xam ne na ku may nax amu amu fa da daan dem ba ci kanam mu ne kat ya- yàlla kat baaxaayam bi ëpp na mu dem ba leeg seytaane mu dem ba leeg seytaane soo xam ne damay nax kon léegi du du du- dute la étape ba pare ci étape la ñu ñëw ci aljaanib alijabi fi lmanha- fi lmanhaji Descartes yi waaw alintiqal min alchak ila alyaqin ok
alyaqinu alawal wujudu nafs waaw alyaqinu althani wujudu llah alyaqinu althalith wujudu alalam Hmm.
من اليقين الأول وجود الن- وجود نفس عندما شك ديكارت في الحواس والحياة الشعورية والحق وجد نفسه أمام حقيقة لا يمكن الشك فيها Hmm.
وهي أن هناك وراء عملية الشك شاة مفكرة هي التي تفكر وتشك Hmm.
والذي يشكك لا بد أن يكون مفكرا والذي يفكر لا بد أن يكون موجودا عندما يفكر لهذا لهذا قال عبارة الشهيرة أنا أفكر إذا أنا موجود
maanaam maa nag foofu nag an nafsu an na an nafsu ci yàlla al wujudul al wujudul aqli lay wax waaye du waxu an nafsu an nafsu xanaa nafsu bii مم.
waaw al al wujudul aqli lay wax.
Al ab kii laa bëgg ab kii laa bëgg ab lam ak ak bëtëri waaw maanaam al wujudul aqli wa aqli du waxut waxut waxut maanaam exist existence sub
jëmm ji dir xel mi xel mi sa pense. xalaat bi lay wax xalaat bi ne man kat maa ngi xalaat ko- kon kon am naa ça pense donc je suis.
waaw yëg gi mu yëg ne xalaat boobu nga xam ne moom moom mënu caa xel yaar loolu nee na nee na nee na nee na xam na ne mi ngi xalaat moom fii ko ci léegi waaw résultat bi am ci xa mi xam na ne maa ngi xalaat mooy kon am naa ndax ku amutoon mënu xalaat
mu mu mu ne wax ji mooy góo.
Waaw.
góo gitaar. mooy koo jitoo góo koo- jitoo wala li ko tudd fii ma ma ma- koo jitoo ergo sëm maanaam léegi góo jitoo ergo maanaam léegi ci ci baara bi waaw ñi la ko jëkk a bindee dafa jëkk a bind ne ko jit ci la ci latin la ko jëkk a bind waaw koo ko jiitu égoïsme mooy sa pense donc je suis léegi da koy traduire en français ni ça di def ko sama donc je suis par ñu tuddee ko al ku jiitu Descartes yi léegi al koo jitoo al koo jitoo de.
la Descartes yi waaw mu ngoog.
waaw maanaam maanaam waaye nag waaye nag y- y- y- nag sa ci gars yi ne ne ne ne kii ko naq doon nañu ko ne ko waaw sa pense donc je suis day mel ne loolu euh, maanaam phrase bi yaa ko yaa ko tëgg Mhm.
ndax jumla sartiyee la Mhm.
xaw ma lan con con con Alors, con euh, euh, maanaam consi lan lan jumla bi phrase bi conditionnel conditionnel la waaw waaw conditionnel la nangam su amee nangam am kon naa nga ma am waaw.
ñu ñu ne ko loolu kon da da da da nga wax ne xats la lu luy lay kiwel la déedéet kon daa mel ne yëkkiwel li ko Mhm.
moo tax mu indi cogito ergo sum daa ne déet nañ jëloo ci cogito ergo sum parce que fi ñu toll ñu wax ne même ki ki ko tarjama Mohamed Khoudiri mi ko tarjama ci arab it da- da- dafa juum Mhm.
ci arab ji u fekk isna arab moo moo jur tarjama bi daa ëpp Daap.
baat yi daa bari waaw.
Descartes li mu bëgg a wax nee na ufakkir képp na ko man ufakkir képp baatu uf- ufakkiru doy na ci Mhm.
ndax Descartes da- boo ne ah, ufakkiru isan ana ana jooju mooy lu am jëmm ju taxaw te xasa te Descartes dara man waxu mu jëmm xa ma- li wax mooy xalaat xalaat bi ah xalaat bi te arab moom bu ne ana mooy jëmm ju taxaw ma jëm ci daaw.
kon léegi du- du- mun a mun a wax ana mun a wax ana dégg ñoom.
Ma- loolu léegi si loolu loolu loolu waaw mu ne wa ñoom ko waaw mbir moom waaw lay wa tawassala ilayhi bil hadis al haqq lil waaw mubashir waaw moo ko xas xas boobu nag. ak ak ak ak phrase bi ni mu ko ni mu ko tëggee gars yi ni ni ko bokkut bokk waaw bokkut. waaw bu ne woon rek man kat man daal damaa xëy xëy dama dama damaa yëg ne yëg yëg naa xalaat. yëg ak am. soo xoon loolu. ñu ne ko baax na.
al yaqinu sani waaw al yaqinu waaw baax na waaw al yaqinu sani wujudu wujudullah waaw أن الإنسان الذي يشك ويفكر يشعر أنه كائن ناقص Mm.
متناه يأتي Mm.
waaw.
ما أدري.
Mm.
lii dama lu muy mutanahin la te naaxisan mutanahin ku ma ku ku da koo xam ne ku ko ko dayu ku dayoo waaw daaw ko yem seen daaw mutanahin waaw waaw waaw mutanahin ku dayru lu jëm waaw waaw yaati bihi xayru ilal wujud waaw summa yafna wa yusbihu adaman wa shuhurul insaan bi naq bi bi naqsi maanaahu anna ladayhi fikra waaw ka hanil kamal faman illasi fatara fiina hadihi lfikra anna hadihi lfikra jaat ilayna bi wasitillahi lkamil لأن وجودها في العقل الداخلي للإنسان دليل على وجودها في العالم الخارجي دون أن تكون دليل على أن, على أن الإنسان كاملا فالله إذا موجود
maanaam و... آه.
wa- waxam jooju xam naa sax yenu maanaam مم.
maanaam léegi nit ki nit ki moom xam na ne ku manqué la ndax yëg na ne judd na مم.
ab sangam مم.
dana faatu ji ndax gis na baayam faatu wala maam مم.
ah مم.
kon moom ju- ju- judd na ci at sangam مم.
dana faatu ci at sangam mën naam مم.
kon léegi moom léegi kon ku ku day talu la مم.
ci temps ak espace مم.
waaw lé- léegi nag manqué googu nit mag ndax nit ki maa léegi xam ne que léegi moom mënut a ñàkk a judd bàyyi moom bi mu juddoo mille neuf cent mille neuf cent un مم.
mënutoon a judd mille neuf cent lu tax su su faatoo su su faatoo l'an deux mille mënutoon a faatu l'an l'an deux mille et un lu tax kon kon daa manqué مم.
ak daytalu googu mu mu xam ne am na ci ci moom ko kon mu yëg ni kat am na kon keneen ko xam ne moom ku mat la مم.
koo xam ne moom moo moo moo ma indi fii مم.
léegi nag ma ak mat مم.
boobu idée li ko def ci man dara la مم.
man man man defagu sa bopp la ko ca def kon nag loolaal ko kooka lay tuddee Allah loolu ko lool مم.
kookee comme comme doon de kooke daal mooy Allah mooy ko mat ka مبروك. مبروك.
kooku kooku faaw maa ngi moom day day war a sa sa safaanoo Safaanoo, waaw.
manqué ko manqué rek mat na ko moom مم.
waaw loolu lay wax وتوصل ديكارت لليقين بوجود الله عن طريق الاستدلال wax kay الرياضي waaw الحق له waaw من اليقين الأول نعم.
وجود نفس waaw waaw waaw waaw bu- moom moom maanaam istidlaal boobu mooy yoonu tegtalu daal waaw daal moom mooy te tegtaloo ci boppam boppam waaw.
tegtaloo yàlla riyaad yi ci wàllu tàggatu daal ci xelam déedéet réalité mathématique mathématique Réalité.
maanaam lo- loolu loolu da ne lo- loolu da ne si si ciment boobu Mhm.
doxin boobu mathématique la maanaam kat mu maanaam def kat mu def bay na xaw si ni mu Ah.
dugal xel mu mu wax daal xaq la waaw xam xam nga léegi mathématique xe- xe- xe- xe- doxinu xel la waaw doxinu xel léegi ginnaaw xam naa ne am naa te te manqué naa am na kon ku am te manqué wut ndax rek soo ne penku ngi nii rek jël nga naa ma soo ngi nii loolu loolu lay wax lo- loolu lay wax asakku asalis wujudul aalam ta taw tawasala la waroon doon xam mooy tawsilu Descartes li haasal waaw taw taw salaam ah taw tawasala salaam Descartes waaw de- yaa ngi kon bokkul tawasala Descartes li haasal yaqin asalis bis bistidlal arriyadi الحق من اليقين الثاني وجود الله وكماله فإذا كان الله كاملا وهو الذي خرس في نفوسنا فكرة الكمال مم.
فهو أيضا صادق لا يكذب وهذا صدق إلهي مم.
هو الذي يضمن لنا سعة سع- سع- سعة ويقين سعة ويقين ويقين.
العالم آه.
الخارجي الذي خلقه الله مم.
مم. وهو- وهذا صدق الإلهي مم.
هو الذي سيمنع مم.
الشيطان الماكر مم.
من خداع حقولنا مم.
هو الذي يطمئن يطمئن- إنما يطمئننا مم.
على سعة إدراكنا لهذا العالم وموجوداته الحقيقية tey bii muy itam inu naa gi dina naa beneen beneen kii ñëw waaw itam tamit tamit maanaam daaw si ma xam xam nga maanaam léegi ba tey Descartes da daa xamut fu fu mu jëm xasaay lii moom la ma xam dafa leer man kat Bachira Bachira ubbi ko ma xam dëgg Descartes nag moom léegi mënut a wax diine ah ndax léegi moom di- booba understand yi booba maanaam naa léegi ni mel ci foofa maanaam eh, nit ñi daal bëggatuñ ko ndax dafa dafa dafa dafa dafa dafa gàllankoor xel Descartes bëgg bëgg a génn ci diine jooju moom ndax maanaam léegi wax ak nit ñi. su su su tudd diine. waxam ji am am problème. xasee léegi moom diine am problème.
waaw moog diine wuñ problème moom di di diineem.
diine moo moo problème.
ah diine wuñ problème diine kee daa am problème. na sa na sa daa am problème. diine joo xam ne dañ ko falsifié.
waaw kii diineem moom dafa leer naññi. léegi ko ko kon léegi diineem kon léegi su su su waxee jaar ci diineem. it maanaam léegi nit ñi mën ko nangu. xam nga li kii kii li mu wax waxul dara. monde bi li may wax li may wan ne dëgg la mooy kat ma- ma- maanaam léegi seytaane ma- ma- makir boobu seytaane soosu ma ma doon imaginer amut ndax yàlla mu mat bi taw du du ma bàyyi yeeg sey- seytaane soosu mu dama nax kon li kon li may gis ne dëgër nag ak nangam na ne lii adduna la taw kon adduna adduna lay doon ndax léegi gaarante bi mooy yàlla moomu mu mu tedd moomu te te yàlla aji dëgg la du waxul nangam nangam ah léegi loolu fi ñu toll boo ko seetee waxul dara dara waxu dara dara waxu waaw dama leen ne maanaam kàndang ci toq la soo xam ne dara dugub nañu ci la dégaat loolu la waaw kàndang ci toq soo xam ne dara ñëw ci waaw maanaam français yi ñoo ko ñoo ko amplifié waaw ba ba muy daal.
ko ko xasaale yi ku am. dootoo gis te dégaat dootoo gis kenn wallaay.
dé dé dégaat amul sëñ du dara. ko ko maanaam ku xamul xasaale yi moom dégaat dana dana la yéem waaye moom ku xam xasaale yi dégaat du yéem waxu dara.
léegi ñu dugg ci Mohamed Iqbal ci.
waaw muskila xoriya.
waaw tuuti waaw.
al insaan wa muskilatul xoriya.
waaw.
min al mansuur islami wal xarbi.
waaw
awalan muskilatul xoriya min al mansuur islami Mohamed Iqbal.
waaw مفهوم الحرية في المنثور الفلسف- الفلسفي يرتبط باعتبار الشخص كائنا سائرة وقدرة لاختيار فعل ما أو تعبير عن رأي ما وعن موقف ما maanaam nag awalan مم.
falasifi yëpp مم.
ñëpp d'accord nañ ci ne مم.
nit مم.
maanaam naa léegi maanaam co- condition condition ci lay doxee مم.
ginnaaw yow mënoo woon a juddu مم.
at mi nga juddu jëkk at ma مم.
loolu ñun ñëpp d'accord nañ ci mu ci dara ah ki wet yàlla ak ñëpp ci am مم.
at mi nga fiy jógee mënoo ca yokk dara مم.
kon moom kon kon ñëpp ko kon moom ku ne liberté am na am nañu ci kanam kon kon kon li liberté te te kan mooy dëppoog ay loi loi yi réew ma nga nekk dëppoog moom مم.
ko kon kon kon ma nga nekk kon kan liberté kon mooy dëppoog yàlla مم.
amul ah kon baax na jërëjëf suba rek kon kon mooy maanaam ko kon mooy lan liberté kon mooy kat ah nangu dogal مم. يا- باعتبار س- آه.
nangu dogal مم. سائرة واو xam nga fii dañ la qudra la ak ixtiyaar واو loolu loolu bextibaar la maanaam ko maanaam loolu dama leen ne am xar moo yeew ci ci ak buum buumu cinq cinq mètres مم.
xar mi mën naa wër ab cercle bu cinq mètres مم.
loolu mooy liberté
Ouh, leer na boo koy boo koy sargal wala boo koy
loolu mooy liberté waaw nga xam ne maanaam waaw moom moom nga xam ne maanaam yëpp rek waaw
ma- maanaam liberté la boo ko doon wax ci gàttal hum, mooy ci ne ko suñu borom bëggee ak yow rek
waxat mu ne wax- waxat shaxalat masalatul uriya waaw ulamaawul kalaam waaw wal falasafatul muslimun hum, faxtalafat hum, mawaqifa firaq hum, al islamiya hum.
xawla kawni al insan xurran muxtaaran fi afaalihi aw kawnihi mujbaran fi afaalihi la qudrata lahu wala irada wala ixtiyaara wa thalika li wurudi nusuusil quraniya nusuusin quraniyatin yuwahi ba'duha bil xurriya fi l ixtiyaar wal bahd al axar bil jabr wa min wa min abri siat al firaq
lé- lé- lé- léegi foofu fi rek olama kalam yi alxaan la ñuy balluloo alxaan ne liman shaa minkum ay yastaqim comme ne jub ñu ne est-ce que ah kon de kon liberté la naa jub kon nag ñi ci bon ñoo xam ñoo ko tey mu ne nag ci waata saa uuna ila an an insha allahu rabbil alamin waaye te doo soob te te sowuma de
kon koy ba tey rek daa tënk rek
bismillah
waaw kon kon daal waaw waaw lé- lé- léegi nag foofu kon maanaam léegi yàlla mu am yorob itam wala yow du xibsuma ci ci ci waxnaa bi état bi mu am moo ko moom amut ay ministre lépp ci loo xam ne mooy taw mooy rey mooy dundal mooy def lépp ah lépp moo koy def boppam léegi nag kooku nañu xam ne nun ci biir programme moom lañ nekk léegi nag ku muy duma ëllëg ñaara yow du tax du tax julli woon du tax nga reew nit nee na waqifuhum in innahum ambasoon am na am na laa yusalu amay fan la wax waxum waxum yusaluun nee na bu sumencee kenn du ma laaj li li li may def daal ne laa mu àqiba li li xukum yi su ma attee kenn du ñaan kur amul kur dafa pour d'appel
ko mel ni kooku buur la buur la kooku mooy buur moom waaw ma ma maanaam fi ñu toll ay liberté yëpp yu doo doo doo doo waxee dara liberté daal mooy jéem a dëppoog li li li yàlla ni waaw loolu la ñoo ne ko ba ba julli bi na Ah, ok.
daa mel ni sax bu ñu àggale ci li nga doon wax léegi Ah, ok.